ci yéenekaay yi ci yéenekaay yi El Hadji Ousseynou

xamal ne kay mbir ya ko amal ca jam ñaajo yéenikaay bi ñu xamal ne ak lu mën di xew daal foofu nga xam ne daal fi la koy amale muy ca jam ñaajo dina am ay njiitu réew yu bëri yoo xam ne daal danañu ko teewee waaye itam dana am ay délégation yu am solo yoo xam ne dinañu bàyyi ko fu nekk ngir ñu fekk ji lépp loo xam ne jëm na ci prestation de serment yéenikaay bi di xamal ne am na lu toll ci juróom fukk ñett ci ay délégation xam ne dinañu Quotidien dalal ki nga xam ne nag moo di El Hadji Amadou ci kàddu yi nga xam ne daal ñi nga xam ne ñoo nekkoon ci kujje yi nga xam ne daal ñoo nekkee ci kujje yi nga xam ne daal moom la génn mag ñuy xamal ne élection yooyu kay jamono ji njiitu da koo gañe ci boo xam ne daal dafa yaatu jamono ji nag leen war daal mooy daal ñu daal nangul njiitu ndam loolee nga xam ne am na ko ci élection yi nga xam ne daal moom lañ doon amal ci mu yeewoo fi balaa yàgg daañu génn ca kaso ba ndax lépp loo xam ne nag ci liste bi nga xam ne daal njiitu réew mi président Macky Sall war na leen a gracier yéenekaay bi di ñu ne ñoom ñoo ñekkay daanaka seeni tur ña ca biir bu dee nag ki nga xam ne nag moo di Mbaye Touré moom nag daanaka moo ëpp sens li ko waral moo di njabootam jaxasoo goo xam ne jaxasoo seetloo nañ ko ak moo di Serigne Mountakha Bassirou direct info du ñu xamal ne am yéen sëriñ yi nga xam ne doon nañu liggéey ak moom jamono ñu war a taxawal ndax dinañu ca bokk wala déedéet ak lu mën di xew direct info di ñu xamal ne moo tax jamono ji daanaka toogaay daa jeex ci ñoom xar fa xuufa yi daal jamono ji saf nañ ci sàpp sëriñ bu ñu xam daal jamono ji ña nga dem ngir lépp loo xam ne nag jëm na ci gouvernement bu yees bi nga xam ne daal moom Macky Sall war a taxawalaat ngir ñu mën caa am seen wàll Barthélemy Dias jamono ji nag maire ba futu la def waaye tamit di jéebaane ki nga xam ne nag moom Barthélemy génn ci réewum Sénégal daanaka ak njuuj njaaj da ca am moom Barth di ñu xamal kay jamono ji ki nga xam ne nag moo di Aly Ngouille Ndiaye am na plainte boo xam ne dinañ ko ci débalal ci ndoddam ci lépp loo xam ne nag jëm na ci élection yi nga xam ne li ci yéen kaay yi El Hadji Ousseynou Elhadj Seydou leen jàmm ci xibaar yi yi nga xam ne nag moom la ñu xëyandoo jamono ji nag léegi nga xam ne daal ñoo ànd ak mi président Macky lépp loo xam ne nag jëm na ci xew moom meeg waajtaay ma jamono ji njànga ca toogaay kay dafa jeex yéenekaay bi di ñu xamal ne mbir yooyu danañu ko amal laata bi ni ñu xamal ne kay mbir ya kay dinañu ko amal ca jam ñaajo yéenikaay bi li ñu xamal ne ak lu mën di xew daal foofu yi nga xam ne daal fi la ñuy amalee lépp loo xam ne nag jëm na ci prestation de serment ba li ca saal ba tàccu kay moom dañu ko fa te ku ko fa def ba wattuwul daañu rëq sa nigi laas yéenikaay di ñu xamal ne kay mbir yooyu daal en tout cas ak lu mën di xew fi nga xam ne daal foofu la ñu koy amale muy ca jam ñaajo dina am ay njiitu réew yu bëri yoo xam ne daal danañu ko teewee waaye itam dana am ay délégation yu am solo yoo xam ne dinañu bàyyi ko fu nekk ngir ñu fekk ji lépp loo xam ne jëm na ci prestation de serment yéenikaay bi di ñu xamal ne am na lu toll ci juróom fukk ñett yu ci ay délégation yoo xam ne dinañu ñëw ngir teewee mbir moomee laa ca jamono jooje quotidien dalal ki nga xam ne nag moo di El Hadji Amadou ci kàddu yi nga xam ne daal ñi nga xam ne daal moom la génn di ñu xamal ne lépp loo kay jamono ji li leen ko gañe ci boo xam ne daal dafa yaatu jamono ji nag leen war daal mooy daal ñu daal di nangul ndam loolee nga xam ne am na ko ci élection yi nga xam ne daal moom lañ doon amal ci réewum Sénégal l'observateur di ñu xamal ne kay a a xew Khalifa Ababacar loo xam ne nag ci liste bi nga xam ne daal njiitu réew mi a daanaka seeni tur ña ca biir bu dee nag ki nga xam ne nag moo di Mbaye Touré moom nag daanaka moo ëpp sens li ko waral moo di njabootam jaxasoo goo xam ne jaxasoo nañ ko ak moo di Serigne Mountakha Bassirou direct info du ñu xamal ne ñi nga xam ne daal ñoo ànd ak njiitu réew mi gannaaw loolee njiit gannaaw prestation de serment ba gannaaw loolee mu war a def lépp loo xam ne nag jëm ne ci nen bu yees bi nga xam ne daal moom la Macky moo di Macky yi nga xam ne dag moom Barthélémy Dias ci jano mu Sénégal daanaka ak njuuj njaaj da am moom Barth di ñu xam ne nag moo ne ci débalal yi nga xam ne moo amoon ci réew mi quotidien di ñu xamal nga xam ne dañu ñoo nekkee Forum Civil jamono ji ne ña nga yëkkati seen kàddu di yuuxu li nga xam ne nag mooy lépp loo xam ne nag jëm na ci wàllu baykat yéeg waag ñu ni mel di ñu xam ne ak mbuxum gu yaatu kay jamono ji moo ci am ñu xamal ne wàllu hôpital Grand Yoff lépp loo xam ne jëm na ci wàllu matériel